ak gaay yu baxam yam andalon bu ñu noppee berndey murit dal di tambali ñu dal di tambali nak waxtane kenn ci magi Serigne Touba yi tay ji nak Serigne Falilou Fall mom serigne ali Fall Mbawor tànnoon ñu waxtaan wala Serigne bi baxé ñu ay kaddu ci jëm ju tedd jooju di mam Cheikh Ibrahima Fall lolu mo tax ngeen dégg Serigne abdullah Lahad sey geey yekati xasida gogu nga xamne yekati yëkkati gogu am solo gogu ginnaaw ba mu daanalee da ngeen déggaat ci biir eh, yeneeni bayit yoo xam ne eh, sëriñ mus eh, sëriñ mbay jaxate dana ko faral di soññe insha allahu rabbi waaye mel ne sëriñ bi dafa wax ne bu ñu xamee kan mooy sëriñ Fallou Fall moom sëriñ Aliou Fall moom maam Cheikh Rahma Fall nañu xel dem itam ci way juróom wu sell woowee di bajan soxna jaxate moom sëriñ Amsatu jaxate ma nga xam ne Serigne Touba noonu ko woon du ma la réer fii du ma la réer fële fu ma nekkit may naan la nga fekk ma fa. yaakaar naa ne nag kooku ku meññ lépp loo jege sa yitte jëmee ko ci liggéeyal Serigne Touba ak di xeex ak noon yi nga xam ne waxtu wu ne ñi ngi jéem a tibb suuf di ko xëpp ci ndab li kooku day loolu war teefam la. jataay bi nag day mel ne doomi seex yi nga xam ne ñoo àndoon ak Serigne Touba rek ñoo wër sëriñ Abdou Samad nii kon yaakaar naa ne. dañuy bayyi ak sëriñ bi mu tambalé ñu sun waxtaan euh taatan ay cadre ak sëriñ bi ci soppe bi yoon wi muy mam Cheikh Ibrahima Fall te gis nañ lu ëpp ci say wax danañ gis nga di ci faral di di di di duggu wa kon kon damay barkeeloo rek sëriñ mustapha Diané bok ci njabotuk sëñ Abdoulaye Diané mom sëriñ Touba xam nga bu fekk feggoo ak Serigne Cheikh Bàcc Diop bokk ci njabootuk sëriñ Mbacke Diop Kalsaan moom sëñ Ibrahima Diop almasari yi feggoo ak njabootuk Baye Serigne Ndiaye Guédé feggoo ak ñi nga xam ne ñoo toppoon Serigne Touba sëñ Moustapha moom dana ubbi ñaari kàddu rek ñu jox sëriñ bi mu waxtaan ñu ci jëmmi maam Cheikh Ibrahima Fall eh, bokki tali bi ñu ngi leen di nuy bu baax kenn ku nekk ci turam ak santam di leen siyaar xanaa rek di xamle ne kon nañ ubbi xol yi fasiyene diglu serigne bi te tektalo ci li nga xam mo serigne fallu Fallou la wax ci am Cheikh ibrahim Fall mi nga xam moy Babul Mouridina te it Babul Mouridina ji ñim andalon ci serigne Touba ñom nangul nañ ko ko bokko na ca ki nga xam motax ñu dox ma kaddu gi muy serigne Ablaye Diané dana wax ne ku yaakar serigne Touba ku ne war nga jox Cheikh ibrahim ñukkal fi ci aduna ndax boo ko joxul njukkalit boo demee ëllëg loolu sëriñ bi mën a faye bala nga caa jot njukkalu seex bi dana ca génn kon nag kon bu yàlla dogalee ñu toog ci jataayu sëñ tubaa ndax kër gi kër sañ tubaa la ndax ki ko fi nekkal doxinu sëñ tubaa ci lay dox waxi sëñ tubaa la bëgg ku ko fi wax teeteeg sëñ tubaa la fi nekke kon xanaa nu bokk diglu ko taatan fas yéene mën a jariñ ci ay kàddoom Euh, bépp jataay boo xam ne nii kàddu gi yegg na fa it ñu fas yéene man a jariñu ci nekkiinu sëriñ bi di sukkandiku ci ay kàddoom wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Euh, sëriñ Moustapha xam nga ne jataay bi noonu ma koy waxee jataayu murit njabootu sëriñ Mouhamadou Lamine gay ñi ngi fi toog euh, sëriñ Abo moom sëriñ Cheikh moom sëriñ moom sëriñ Cheikh May sëriñ Abo Mbacke moom sëriñ Cheikh May mi ngi fi toog moom itam. feggoo nag ak sëti sëñ touba yëpp kon sëriñ Cheikh Bàcc waaw ak sëriñ Modou Modou Mbacke mom sëñ mamour Mor Pakala ah, nga xam ne way juróom wu jigéen sëriñ Soxna yi boko jur muy soxna mam jeng Mbacke ñom ñëpp ñi ngi tok ci jotaay bi. sëriñ Cheikh Bàcc yaakaar naa ne bu ñu waxtaanee maam Cheikh Ibrahima Fall ñu ne wa kër sëñ Ibrahima Diop almasar yi ngi fi wa kër sëñ Abdoulaye Diané ñu nga fa wa kër sëñ Modou Lamine Firdawsi ñu nga fa yaakaar ne du ñak ay kàddu yo ci yëkëti laata ñuy jox Serigne Abdou Samad ci jotaay bi fekk gi ko fekk rek ci turu euh ñi nga xamne moy mooy Serigne Ibrahima Diop almasar gep wa rawati na wa kër Serigne bakay Diop kalsan yu bet na ma lol ay nak digal moom jëf rek ay nak ki ñuy wax loo nag moom mënees na ci jëm wax ndax ma mooy maam Cheikh ba bu mu Babou na sëriñ bi de bari nañu ko fa jiitu lool waaye nag ba mu ñëwee ba mu ñëwee nag la li xew-xew li xew mooy lan liggéeyal sëñ Touba bu toggee ci kaw ma toog suuf boo ko jugee raam liggéey joxe nga xam ne loolaa taxawal jumaay sëñ Touba yi liggéey joxe moo taxawal jumaa ji loola moo ko fent kon dërëm bu waaye yëkkati jox ko sëf sëriñ addiya wàllu Cheikh Fall maam Cheikh Fall génn hmm. bu la neexee bu la naqaree hmm. te yaakaar naa neex na mu di yër dëgg la dëgg la wóolu sëriñ nag xawma ko gën a def ndax ña ko seereel mooy sëñ Abdourahmane Lo ak sëñ Bàcc Boussa hmm. ñoom benn lañ woon ñoom ñett ñooñu sax bokk yenn suñu néeg bu dee benn la lal ba kenn du ca toog ñoom lijjantuñu woon lu kee def ak lu kee def ñoom li ñuy lijjanti mooy sëriñ bi leen boole rek lañ lañ lijjanti la ca des lijjanti ma kooki nag dégg naa ci ku ma jege mu ne sëriñ bi dafa yónni maam Cheikh Rafal mars ñu ngay jóob ab tiise mu dem jënd ko indi sëñ bi téye ko na ko ko jënde mu ne ko ah amatul njëkk ndax laal gi ko tax Assalamualaikum. Cheikh Massamba eh, yaakaar naa ne nee nga kàddu gi bett na la waaye jekku nga ko yaakaar naa ne kàddu yu néew na waaye mënees na cee bari jëriñoo lu bëree bari sëriñ xa Abdou Lahad Mbacke moom sëriñ Khalil moom sëñ Fallou mi ngi nii si jataay bi moom itam ñoo ñëpp di njabootu sëriñ bi ñu jàkkaarloo ak tuut tànk yi nga xam ne bu ñu bi da leen di Berndel ci diggante soow café biscuit ak li ko ne bëgg ay tàngal ak yëkkati weccat di leen jox gis ngeen ñi ngeen jàkkaarloo léegi mooy way néew doole yi nga xam ne fu ne la ñuy ci Touba di ñëw ci moom di sàkku ndimbal kon loolu mooy li nga xam ne sun borom subhanahu wa taala nee woon mbindeef yi ñooy sama sama sama njaboot ku ma wuutu ci ñoom ma wuutu la ci say soxla kon Serigne Abdou ñu taataan rek ay kàddu ci sa maam ju baax di maam Cheikh Ibrahima Fall sa talibé bu mag bobu nga xamanteni bi leppam joxon nako sa mam ji serigne touba khadim rasoul Rasuul kan kaddu yu néew na waaye mënees na ci bari jarino lu bari bari serigne khadim Abdoul Ahad mbake mom serigne Khalil mom serigne Fallou mi ngi nii si jotaay bi mom itam ñoo ñep di njabotu serigne bi ñu jakarlo ak tout tank yi nga xam ne bu ñu xëyee sëñ bi da leen di berndel ci digënté soow café biscuit ak li ko ne bëgg ay tàngal ak yëkkati weccat di leen jox gis ngeen ñi ngeen jàkkaarloo léegi mooy woy néew doole yi nga xam ne fu lañuy la ñuy ci tuubaa di ñëw ci moom di sàkku ndimbal kon loolu mooy li nga xam ne suñu borom subhaanahu wa taala nee na woon mbindeef yi ñooy sama sama sama njaboot ku ma wuutu ci ñoom ma wuutu la ci say soxla kon Serigne Abdou ñu taataan rek ay kàddu ci sa maam ju baax joojee di maam Cheikh Ibrahima Fall sa taalibe bu mag boobu nga xamante ne bii léppam joxoon na ko sa maam ja di sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul. asalaamaaleykum wa rahmatullah. maa ngi nuyu mbokk yëpp di siyaare yëpp bëgg lool ci sama mbokk mi di sëriñ Fallu di sama doomi bàjjan taalibe rek ndax soxna jaxate moom am Amsatu mooy waajuram kon nag xam na am Amsatu ni mu demee ak sëriñ soxna boog sëriñ Abdoulaye même mu am ci man rek war naa tax lu mu sàkku ci man mu yomb mu dolli ci nag cër bi mu am ci yoon wi nga xam ne moom ñëpp maa ngi ñëpp ko bokk muy Seex Ibra suñu yaay di Faal Mbawar di waajuram kon nag dima ci topp ay weeri weer bëggoon lu mu dollandikoo ci jëmm ju tedd jooju xam naa dama ma taxasus nag ci mën a wax ci moom ndax Seex Ibra dafay ko naqaree wax waaye daal doy na rek sëkk liggéey bi gën ñor Sëriñ nga xam ne kenn ko mooy jumaa ko Serigne Fadilou defé ba nopi soro bi ci gëna reuy rëy jëmmi dëkk bi nga xamna fo tol diko di gis bi mu nopi dafa wax né mom la koy tuddé daal di jaar ci turam wo si woowu muy làmp fal na seigne fal nak liggéey lagi Serigne Touba liggéey bu toll nii ak ñi ko seq ñëpp ak ñi mu jëflanteel ñëpp mu xool xool ba tànn ko ci moom dara jaale ko tudde ko ko loolu symbole la mandarga la ci dayob jege gu Seex Ibra jege sëriñ bi ak cir bu mu am ci moom xam naa dana xat ci waxtu wi ndax timis jege na waaye ñu tënk rek ci lenn nag ci yu ma fàttaliku dégg ko ci sunu sëriñ su tedd soosee du suñuy waajur benn ci sëriñ Saalihu wala sëriñ Sohaybu wala sëriñ Abdul Ahad wala sëriñ Abdul Qadir radiyallahu anhum wa nafaana bihim maa ngi fàttaliku benn bis fii ci këram kër sëriñ Abdul Ahad gii ci dëkk bi waxtu marax ñu toog muy waxtaan ci sëriñ bi ba agsi ci mbirum seex bi daal wax ne sëñ Fallu moo ko wax ne ko dafa am bis sëriñ bi ne ko boo xëy boo xëyee na nga ñëw ci kër gi moom sëñ Fallu ndekki bis boobu da ko wax seex bi ñoom ñu tasee ndox buñ dikkee ba nuyoo ba toog sëriñ bi génn ab këll këllu wén def ca ndawalu ganaar <coughs> daal di woo sëñ Fall lu mu topp ci moom mu ne ko këll bii demal yët ko Ibra Fall te ngeen te ngeen xewlu ca maa ngi ñëw dikk ne ko bàyyi cheikh bàyyi cheikh sëriñ bi nee na ñu bokk xewlu ci lii mu ne ah, xanaa yaay xew xewlu ba noppi nga jox ma ma barkeelu ci ndax xaj du bokk ak borom mais ma def man ndax li ma ko siñ mu bokk ak man waaye mu gàntu rek dëgër ci loolu ne ko daal xaj moom dam seq ak borom ba mooy mu lekk ba noppi xëpp sànnil ko ca gaal ga mu xëpp waaye sequma ak yow di bokk ak yow ndab nee na ñu tàmbalee fa waxtaan nee na sëñ Fall ne ko waaw yow mi nga xam ne nag buñ ko doon xam-xam nga ko te yaa ngi ànd ak moom ca bu yàgg ba nëgëni dama ba nga wax ma lan moo soppiku ci ba nga ko xamee ak moom ci léegi mu ne ko xanaa bijaaw bi bijaaw bi laa gis lu dolli ci moom waaye ba ma moom ci mbàkkee ko yor ba tey jii ci njëriñ gisuma ci jaamu yàlla gi lu ci mën a wala ci jub wala ci farlu gi mm-hmm wala ci lenn ci mom luñ man ne dolli ko ne ci bi jaw bi ma ci xamutoon te xam ko ci rek waye seigne touba mama ma ci mbaka jor muy mi ma xam ci njariñ leen seigne Fallu njëkk nopi noppi ko muy xewlu mu dem ci sëriñ bi ne ko noppi nañ ana ibrahim Fall xewlu ngeen ba nopi mu mom ko ah, moom du bok ak man ndax xaju bok ak borom ba waxna wax mu gàntu nee na bi tontu ko lam tontu won seigne Fallu ne ci ibrahim Fall Mbàkke Kajoor ba de mooy moom mi rek allahu akbar dégg naa it sëriñ Sonia bu di nettali benn bis ne sëriñ Cheikh bi dafa ñëw ci sëriñ bi waxtu koor sëriñ bi di jàpp taatan jàpp yi ñu ci ab këll mooy këll boobu mu daa yoon rek am nga sëriñ bam dafa fonkoon këllu ween bi mu ne ci géej gi waxtu wu ne këll baa ngi ci wetam mu daal taataan jàppit mi bu noppee jox ko nak ibrahim Fall bo demee bu dog joté nga dogé ko mu génn and ak suñu yaaram bay waaye yaaram téyel ma sama jappit ni suñu yaaram téye ko ñu ngi dox tuuti mu naka ko ah ku yor bi da ngay dem ci kanam kenn wul la jitu ñu <laughs> mu jitu mu top ci moom ngir ormal mu ne ko ah yaaram njàppitum and ak mom dima jitu sax wuur da nga wara ñew ñu dem rek ci ñu mu ji lang ak mom mun ma gaa yaaram taxal moon la ñuy def njàpp si jox ma mu jox mu àgg suuf ne ko secc naan dal këpp këppoo këll bi doon na ko nii lañ koy def moo gën a wóor ay ilaha illallah eh. dégg naa it suñu sang bi nga dañ koy ci dañ koy ci ku la koo dafa tàng diine wala ñu jàppe ko ku ku teengal wax la ne fonk fonkoon Seex Ibra la te accepté ko te nangul ko lool sax te dégg yu bari ci moom laa ko déggee bokk na ci yi doon yéem ci lu mu wax ci làmmiñ wi nu muy dëpp nu muy dëppoog dogalub yàlla muy wax ne si ñaaram mbay dafa demoon soldat quartier nena bis biñ ko ko bis biñ ko ko waxee ne ko ñibbisi na dana yaaram ñibbisi na ñu ne ko amu ne ko ah di bokkut ak la dégg noonu laa dañ ñamoon fet la koy ah ñëw na ni rek ñu ko amu ah kon baax na bisimilah ku ne xam na ne ba gannaaw bi bi Cheikh Ibra demee ab diir yaaram a dem waaye ci fetal la faatoo ndax dafa rax ci kaw eh. loolu li solution bi di joxe misaal ci dégg naa it mu wax ne fii sëriñ bi nekk ci njaareem néeg bi néeg bi mujj nekk ci zahir nga xam ne néeg seex bi defar la sëriñ bi danaa wax ne buntu penko bu moo kaaba gi jàkkarloo moom la ko defar la woon dafa amoon buntu penko sëriñ bi dadaa wax ne suñ borom moo ma wax ne liggéey bii Ibra Fall liggéey bu ma liggéeyatee ba ngoon naa fay noppaloo waaye xamal na ma ne xalaawatul jannati foofu laa koy njëkk a mose mooy bànneex àjjana yi waaye na mu ko waxee nala deme demee bis biñ ko mujjee gis ci saaxir xëy googu mu jëmbataloon boppam ba toog fi toog na fi midi jëm midi demi ab taw bu ndaw fekk ko fa mu jóg ci taw bi dox dugg ci néeg Seex Ibra boobu foofu lañ ko mujj gis foofu lañ ko jëlee indi Tuubaa kon nag taw feex a ngi ci tàmbalee ci liggéey boo xam ne fale sëñ bi mujj nekk ci àddina ba dem déyale jëg boromam loolu nangu nangu bu sëñ bi nangu jëfam ah. bokk na ci yi ma daa yéem ci ku mel ne sëñ sa sëñ Saalixu mi ni meloon ci moom nga xam ne mënta wax joom ñaari baat yu àgg sax te gisoo ay rongoñam waaye dégg naa mu ci yéem lool ne Seex Ibra bokk nañ sëñ mujj woolu am sax lu mu ci yéem ndax ne gaaw bi sëñ bi mujjee wootee waxtaanu mu rëy woo nga xam ne takkusaan la tàmbali ba gannaaw gee dëkk bépp daje nee na yónnee na wolu seex bi nee bi mu egsee daa fekk ci mu si jot sëñ bi julli nee na seex bi ànd na ci julli gi waaw julli bi hmm. te nee na ku ne xam ne timis buñ la ci rawee dafa xaw a naqaree fay waaye nee na li tax nga xam ne seex bi la da ko fay ni ko nit ñi fayee hmm. amna na ci julli timis gogou te buñ ko rawee fay na nit ñi fay loolu si bokk na ci li si da yëm ci mom mom nak bokk na ci siñ bi da misal ne budé jigen mune diw waye budé gor mune ibrafal ni mune budé ibrafal mom la ñëk gis ci ko xam buma ko woyé sama sante lay wuyoo bu mm-hmm. ma yónnee it mën a waqit di daw ci moom laa ko njëkk a gise daana wax ne itam Ibra Fall defalu ma lu ma kenn defalu waaye damaa def ni ma yàlla def mm-hmm. moom bu dee ab jox jox rek mm-hmm. di sukkandiku ndax ku ne defal na ko lu ne waaye nee na ni ma yàlla def dama nee def yàlla def nag mooy coobare yàlla am na bis سرين باكي فاديما يالله كو يالله يرم نتلي نما نه سخنا ميمونه الكبرى رضي الله عنها ان شاء الله دي نيناكو امنا بيس مو نيو في سيرن بي سرين بي دي وقتانا مم با اكسي شيخي مونيكو ميمونه دي ابرفا لي فخ يموت لي تخ يموت كين سي مان دا فا باي بروم بيكو dana xëy dëgg la dafa bàyyi boromam bi ko bind bàyyi bokkam bàyyi boppam jàpp na waaye nag danaa ko defal ci jëmmam ji lu mënalul boppam boole ko ñoo xam ne ñoo gën ci moom ay bokkam wommat ko it ba teg ci loxol borom mu delu ne ma soxna Mayit neena ko. suñ mbàkkee mo wax de. ma ngi bar sax dama koy fekk. mu ne soxna May mu mag ma gis sëñ Abdul khadir moko waxat ne ko. sëriñ bi neena ko sawara defey ñewon fi ci man. nga sawara ak aljana gi yëpp ay mi def li yalla bind. deug la dëgg la dañuy wax ak sëñ bi. Mm. ni bis yi wax ak moom ak mu ne sawara ñew fi di jambar rek. ne dal suñu borom da ko digon ne ko la am la an jahannam min al jinnati wa nasi ajmain waaye ba sa xel dal dinaa la feesal del dama la bindee ngir ngay lakke dinaa la feesal del ci nit ki jinne bañ fees te nee yoon wi ma aw bu ñu ko bayiwut yëg ne la ko suñu borom digoon du am ndax narta na moom sëñ waaw mu di ci jàmbat rek nee na ba mujj ma ne ko toogal toogal te diglu ma rek bu ëllëgee danaa seen ñii di ngeen mbirum Ibra Faal ak waa këram ma fecc lee la ko yaa ilaaha illallaah auzu billaahi mina seytaani rajiim sëriñ bi kenn la maasum maslaam te du am moo jiitu sang ya dee fa digg ak lu gis mboolem sëriñ bu ko def maasit na sàkk ku ni seex ibra faal ibra faati nu gis sëriñ si yéen a ngi nii tee ngeen a da jëbis te ki def ni no def jébbal ko seeni kurus day yokku diine di fal wursak di guddal fan di fek lor ak ker ker ak tar tar ku weddi na mas ku mas masati ko ngir ker la waju ko mas masal ba masal bul faale yow kula la ku fas ne bamba sama sum baye dëkk jógal and ak sa jëm dem làmbar na del suñu gis barakallah barakallahu serigne dam sambu kon ñu àndaat ak sëriñ bi hmm. bu ne ci walu bu dee ci wàllu zahir nii rek bokk na ci ñi nga xam ne bi bi demee ci géej gi seen itte jëpp jëpp jëpp moo doonoon lu sëñ bi ñu bisee mu jaral ko daal di tuxu dem ndar daanaka féete tàmbali politique waaw tàmbali politique jaxasoog tubaab bi tàmbali sax di neexal soxnaam jaxasoog moom di ko indil ay xar di ko indil ay ganaar. soxna si tubaab di ko di ko neexal ba miin ko. ba tubaab bi mujj doon xaritu Seex te moo gën a xam ne tubaab bi bokk nañu kalaami siñ ba ñëw ba jaaxal bañ eggee ko ko mu ne leen bëgg a miinanteeg moom ba ba mën a wax ak moom ba layal siñ ba mu xam ne tooñut kenn bañ indiwaat ko rek laaj ji ndax bu ma ko defut du ma may ma wax ak moom waaye daanaka li li li mu ko daa jox ci alal ak di ko di ko neexal sax kenn xamul nu mu ba dafa mujj correspond xam nga ne serigne bi amna lu jégué juroom at yo xam ne kenn xamul ci mom dara foofu sax dana fi wax lu yéme ndax juroom at yoyu serigne bi dafa nek fo xamne juroom at yu ma déggut ko dégg wolof wala fa rek déggut maam bis mu toog ba mujj mu dégg ku fa romb di wax di wax di wax baat baatu wolof sëñ bi daal di génn yor xalima gi nii fi muy bindee daal di ko na yow dafa mel damaa dégg ngay wax wolof mu ne ko waaw wolof la mu ne ko nanga tudd mu ne ko Abdoulaye Ndiir foo dëkk mu ne ko senegal mu ne ko foo dëkk Sénégal mu ne ko ko na xam nga fu wax Ibra mu ne ko ah ko koy xam nga ko dafa siiw mu ne ko sama taalibe dama la caa bëgg yóbbante ab ndax moo la ko joxee danga ko ko jox kon naa la ci yóbbante ak yeneen i bataaxel yoo xam ne boo ko joxee dana ko jox seen borom ci liñ njëkk xamaate nag ci sëñ bi dara mooy leetar bi bind sëñ borom saamak cerno ak ñëpp ci lañ xamaati sëñ bi lu wér waaye boobu moom ku amutoon ngëm-ngëm jàpp nga ne sëñ bi nekkatu si ndax tubaab bi dafa bokk ci xeex bi ñoon xeex sëñ bi correspondant yi war a jëm si fii dañuy fexe ba dara luy jóge sëñ bi du fi ñëw luy jóge fii dafa def bis boobu la seex bi na jëkk a toog ba mujj rek mu daal ne xetu sëñ Tuubaa ngi may xeeñ mu jaaxal ñëpp nas kii si Abdoulaye Ndiir egsi daal ne ku ñu wax seex dafa àllaa soxna suñ ci boom jënd ci ñu ko waxee seex ba dafa wut ak paan bu mag duy ko ak ndox mu rek mën nañ ma ci dugal moom jëmi waaj waaw lay ngir gan la xamagul li xew waaye dañoo jekk jekk ko ci sang ko mu mu ndox mi ndox mi naan ci ba mo mu ci waaw bi fi jóge suñ Tuubaa nii dañ def ay yemu ci nak dal ko ci kaw lalam bi tok suuf am ci rayal koy xar won jabot gep ñu di ko tàmbali ko siyaare mu dal cheikh mom fi sansa ñu di ko gën a lekk topp aku tooyaayam aku tooyaayam kay da nga dal di gën a lekk yëf set dara du manke ti mel cheikh rek xam naa du dal cheikh dal daal di waxtaan ak mom nak mu dal ko jox yóbbante ci la ci la nit ñi nak seen bop do ubbi ko sëriñ ludul ku melni cierno ma nga xane mom moom bi da ko njëm ñu wax njëmmir. ba ñe sëñ bi genn na àddina ba mu am ñuy jambat ñett ñuy jambat ño xane sun sant bi lañ yor. te umpale sëñ bi di wax naan nu ñuy def léegi xamna naa léegi seen yoon wi tas. bay bo cierno di xeyel sëñ mort tay gontal bopam ndax surga rek la ba cierno di kene gam dafa fekk mbindu mu tay xep sëñ bi xonqal seen i tur nañoo moyu duma seen morom. la ilaha illallah. naa ne ci xalwa rek. yow mu jeex bu jeexee ma génn. ko moom dafa ubbi boppam mu xam la xew. Euh, bu dul lool nag ku ci mënul noonu rek jaaxle nga. kenn amul lenn lu wér ci moom. bi loolu jàllee nag ba Seex la nekk di politique ak tubaab bi. ngir nuñ indiwaatee si bi ba bokk na ci ñi nga xam ne ci saahir nii rek ñi defi pexe ngir ci saa saahir mu dell si ci la bokk. te yàlla may ko tawféex yi nag tubaab bi nangul ko. correspondant bu mu bëgg yónnee sëñ bi fu mu gën a gàtte la koy la ko tubaab bi awale mu gaaw ci mën a jot mm. yaa na mujj nag muy am tawféex di wut ay yére baraayak cere baraayak ay ay xar sax daana ko defar di ko yónnee sëñ bi foofu sax daa feex lu yéeme ndax ne boo ne ab Baye Fall da ngay defee ne Baye Fall mënta jaxasoo tarixa yi ci des ndax niñ ëppale ci sëñ bi ak niñ ci mel waaye ngeen war na Seex bi ku diplomatie la woon ku silvisé la woon ku nite la woon ci sëriñ bi rek la dof booy soo sëñ bi moo gën a nit ñëpp. dëgg la. ci biir loolu dadaa xar yi mu daa defar ci ndar day seet El Hadj Malick ba gis jàpp ci loxo ñu mun a ko sa mbokk mi lay yónnee xar yi te xam naa ne doyloo na la fonk na la rend ko sa loxo bii bu defee bu ma koy bind ba taaxal xamal ko ne yaa ko rend ci bég te dana a jar yi xam naa ne xam na ni nga selle mboolem xar yooyu yëpp Seex euh, El moo ko daa rend ci loxoom hip bo da daaneel mu dor koo fa Cheikh Ibrahima door koo fa defal ko boppam. Hmm. sel ko moom wow mu def ko def mu sel def ko ci ay sa koy sa koy ndima yu rafet dor wutaat yenen def ci tuwa bi yónnee ko. ndax correspondant bi jafé jafé rek tuwa bi dana fexe bo mom bu japp nit. waaw lépp ci xalam mu rafet la ko da defee. Hmm. ko na xam itam limu limu li ci liggéeyu sëñ Modou Moussa dina bi noppé ci gis sëriñ bi xam nga mom kéro bañ dajé bay waxtaan ci mbirum sëriñ bi mag ñepp dajé fi loolu nga wax légui rek ñom benno gi ak séddante ji dafa ndax bi sëriñ bi ñëwé Touba mom kenn wax ko ko ci zahir da ko xam ci baatin rek waaye kenn mu fitu ne ko sëriñ bi ñëwé Touba waaye nag ci biir ay bis googu la ñëw seet sëñ Daabu Dramane naka fekk moom bokk nañ ñi gën a bokk nañ daara te ñu mu gën a xaritool gën a mën a wax ak moom la mu ne ko li xew dina ñëpp xamandoo nañ ko ana nu ñuy def nag moo tax ma ñëw naka ah, loolu xam naa li ci baaxoon ma dem gis sëñ Mbàkke bi suñu bokk waxtaan ma ah, waaw jot na de sëñ Daam ne kon danga ma fii nekk ma dem gis sëñ Mbàkke di fekk suñu mbàkke gi day wax ko suñu mbàkke ne ko waaw ah, moom day man maa leen ko gën a yàkkamti ndax dafa am lu ma santoon damaa ne boo ma noppee gis loolu ñuy wax miraas nañ ko teel def te mënuma ko def te dem ñi ci kon li ñun ñu yoon waxtaan def suñu ne Cheikh Ibrahima ne ne sëñ ne sëñ ne ne ne ne sëñ daam nañ ànd ñëw sa kër ndaam seex sëpp daje fa ñu waxtaan suñ daam na ko loolu sëñu ndax yaa ma gën a jege sëñ Tuubaa yow la jiitu doon ci lislaam ci suñ bàgg na ko yow yaay sama kilifa ndax yaa fi la bi ko ci lu kon naa ñëw ba Daaru Xudóos këru Daaru Xudóos gi yow nga jógee ndaam ñëw fi ñu fi ñun ñëpp morom voilà hmm. loolu mënees na kon boo dee nga wax ko Seex Ibra waaye nag nañ woo mboolem ku seex si bu kenn des. Hmm. parce que dafa wax wax ju am solo mooy bi ñu ba seex sëpp daje kenn desut suñu Mbàkke dana maa leen wooloon bëggoon nu bokk waxtaan nu ñuy bi ñëpp ko hmm. dama mënaguma sasi moy mooy dafa maa dénkoon ne ma ba ma noppee gis lolu ñu xam ménage nang ko téré def Cheikh Ibra daal ne daal di gaaw dag dagg wax ji ne ko ah moom Mbàkke bu sasi suñ Bàmba dañ koy miraas ah. suñ Bàmba day nit bañ di ko mirage <laughs> ma ne ko waaw mom kay du nit waye nak ndegam melaw nit la won ba bañ ko gis fokk ñu jaarale ko fi ñu jaarale nit ñi rek nga xam ne ñu du nit mm-hmm. te lii dama ko santone mo mm-hmm. ne ko waaw Mbàkke yow mi jàng

Cheikh Ibra Faal ay doom dikkeem moo rawi mbokku rawi doom toppi waaj leen pexe mas nay xibaar bay wax ni yàlla mi ko bamba moo moom rasi ko jox ko say pexe tegtal ko yoon wa am murit di raw ba pexe murit ba am ngërëm bari murit tuduri ree di teex mu daal di tey ba Dakar ngir dëgg Bamba di fa xaar seet na sëriñ tay ba Dakar ci njàng lay xamee pexe mu tëdd ko di lis xaar ba mu xëyee ba dis baar sëriñ Maxtaar Touré fa jaar leeram gawan ko ay pexe Maxtaar Touré nga yari gaar yéenu ko jëm Mbàkke Kajoor Seex Bamba yónni ko ca buur Seex Ibra topp cay pexe mu gis fa Seex Adama Gey sànni mbiram daal di ca mu war ko bamba mër mu rëy sëriñ ba naan ko foo fexe mu wax ko dëgtal fa moom sëriñ bi wan ko la fa moom mu xam ne gis na ka ko moom mu daldi fépp mbiram joxe mu soob mu far jiitu leen bamba ne kii xëpp leen leeram yu wër na leen fu mu toll xol bay nux nux wax naa ne kon tuuti ma dem fekki sëriñ bëlam biram ba kenn du mos ci baatinam lu def ca bis ba niy texe la dara dar ba ca Dakar jàpp gannaaw yoonu saxaar mbër mu fi rëy bañ naa lakkaar Cheikh Ibra rëy laa jay pexe barakallah jërëjëf euh, Serigne Bass Samb jërëjëf yi nga xam ne ba tey ñoo ngi ànd ak ñun ci waxtaan yi nga xam ne ñoo ngi koy amale fii ci kër Serigne Abdou Samad Mbacke moom Serigne Soxna bu moom Serigne Touba Khadimou Rassoul lépp rek jëm ci dund ak jaar-jaar imam Cheikh rahim Fall ak seere rafet yi nga xam ne ñi mu àndaloon ci Serigne Touba daanañ ko ko seere te nangul ko ab cëram ci Serigne Touba waaw ndi xam nga doy sekk rek ci ñim ñim bokku doon serigne bi ci liggéey bi ko mel serigne sëriñ bu Buso am fu ko tegoon lol te seddu ko te bayiko xel te bokku ñu aw yoon bokkuñu daal am naan way am na ku mas a ñëw ci moom ne ko man de sama mag dafa faatu te bàyyi fi ay njaboot ak soxna te bu ma leen jëlut danañ tumuranke te fekk na ma ak ñeenti soxna ma ñëwoon nag yow mi mufti yoon wi ngir nga àtte ma mu ko ana kan ngay siyaare ci fere yi mu ne ko seexi mu ne ko da ngay dem ca ñoom ñu àtte ma ndax yoon wi dégg géej la

Cheikh Ibra tuddee ko ñu bari. waaw te buñ masaa tasee doo xam ne Cheikh Ibra am na daraja wala wala kilifa la sax. li barke bii bari bari fu ñu tase rek la la koy xamal mooy dañu songo <laughs> dañu songo ba kenn daani morom ma <laughs> ñu door a mën a waxtaan ba ci yoon wi mujjee gi suñ daam jaar fi jëm Mbakke jëm Tuuba jëm si Tuuba te bi la yàggut dara dañu waxtaanee ba muy dem ba muy bëgg dugg ci oto bi da ko ne Abdourahmane mu a ko Mbàkke mu ne ko war naa ba ngoon te soxla naa ndogu de mu ne ko fas yàlla keroog bi liggéey di tàggee Cheikh Ibra Sëñ daam te amit bi ko fekk mu tiim daa daal di wax ñi fekkee woon wax jooju ne leen xam ngeen keroog bi may wax lu mu ci jubloo lu ngi deen mu ne ko dama doon tàggee boppam ndogu la ma waxoon nag mooy téeméeri kaamil yi ma soso woon jàngal ko terkait kaay bi ci des da nga nañ ma may bala ñu ko waram ñu ne ma agal kaay bi doon kon agal sëñ bi moo mel noonu agal sëñ bi ñoo mel noonu koo ci jàpp rek da ngay def ne ci ñoom rek la ci moom rek la sëñ bi jëfandikoo coobareem boo yemoon ci maam Cheikh Bàcci mi da ngay rek la bi defal dara jaar ak fa kenn bi la si Ablaye Diané maam nga xam ne am na kenn ku bokkutoon ci yoonu murit koo xam ne ngir won won kooka mbirum sëñ bi rek ba mu ko tàggoo dem màkk dafa dana dana ci ci man lay xamee sëñ bi kooka dem na màkk ba delsi julli gum julli rek gis gis sëñ Ablaye Diané ci wetam ñu ànd julli ci ca màkk te sëñ Ablaye yi ngi fii dimu fenn bi mu delsee comme ko bu ko laajee ñu ne ko sëñ Ablaye tukki wutoon aji ngi da nga xam ne loolu parce que te ko kooku def jëf jooju war maa loolu sëñ bi àgg ci tool bi muy béyal sëñ bi sax du ci soli ay junni junni junni yu mel noonu ñoo am ci biir yoon bi mhm. xam ne jënn jëmmi seex bi lañ fab di ci taan waaye defaru sëñ bi mel noonu mhm. nag moom fi mu ñëpp mooy dafa teg sëñ bi foog kenn tegu jàppe njabootu sëñ ko kenn jàpp mhm. te yàlla mayoon ko ci it xam-xam boo xam ne mosuma gis ku ma ko ci bàyyi. ndax am na ku ma sa ñëw ci moom ne ko sëriñ bi bi waajuram. waaye ba mu ko ne yëkkit ba teg ci kawam. ne ko naa yow mii nuru nga doomi diw de woyof nga tooy. ah waaw. waaye ba ne amutoon jëmm. waaye ba mu ko yëkkatee teg ci kawam rek da ko ah sa poids bi gis na de. yow de jur yow. <laughs> xam nag am na yeneen yeneen yeneen nu muy xamee sëñ bi nu mu koy yëgee. te gis nga soxna sëñ Bousso bi rek bi sëñ bi nekkee Mbàkke bëgg ko toxal si boobu mi ngi mi ngi naawel yabal na ay ndaw yu bari mënuñu fexe ba andi ko ay seex bi dafa yabal. seex bi Moustapha de mooy bu ñu jubee dëkk bi rek la ne jarut may laajte xeeñ na ma xetuk sëñ bi xeeñ na ma fii la ne. <laughs> ci la ko andee moo ko bagaasam. mu mu rafaatale ko. kër gi si mbusoo bi mu jàppale it nag waa kër sëriñ bi rawatina sëñ Moodu eh, mi nga xam ne moo ci mag xam nga Moussa sëñ Moussa ka dana ko di junj mag ba mu naan mag ñëpp dem moom ma ne moom mu ne mag ñëpp moom mu ne fa. mu demee Mbacke Bawal dafa ne ah. waa kër gi Bawal naay soq di rooti de wala boole liggéey ñu ko jox. lu Bamba wax mu daal di naaw fóorim jure sant saaw naa ko da ngay gannaaw jàngal ma rek doom ah. na ñëpp bëgg sëriñ ñëpp ñëpp ci sëriñ ñëpp la sëriñ bi jaral lu ne. Mm, waaye leen gën a def ci sëriñ mooy oh. wóolu. la gën a def murid yëpp bi. Mm. ndax ko xam lislaam xam ponk julli ni mu toll ci lislaam nga xam ne dañ naan ko julliwul lii ko julliwul laa te loolu lépp di loo xam ne addisa koy indi mu leer nañ ñi xam lañ ca tege koor noonu yooyu nga mën koo teg fii te wóolu sëñ bi tax bari woon na koo xam ne boo ko ne woon jàppal sëñ bi te bàyyi julli lu ko ñeme waaye def ne bu ko bàyyee day daal dem sawar defe ne sëñ bi doyut doyut ci kooku wet waaye mën a doy lu sëñ bi wëlis lépp nag te wóolu sëñ bi tax loolu meneen mbir la moo xam ne ku àggul fa moom bu ko ci yedd xam nga koo xam ne àgg nga ci wóolu sëñ bi ak warmaal ko ba nga xam ne bëggoo lenn lenn lu jege sëñ bi fu dëkk sax da ngay dem dëkk ci gannaaw boo demee Njaaréem ma nga bu liggéey Touba ma nga Touba Fall dana nga wuti dëkk ak moom sax ndax war maal ko bu jëmee ci moom it dana jàpp ñetti yoon ci yoon bi ñetti yoon dana ko jàpp sam san lañu ndax ko rek am na lu déggoon sëñ Abdul Ahad nettali ko ci nag moom lay ngir nga xam ne Cheikh bi ku ku fiir ci sëriñ bi la te ku ne la nga yor ci sëñ bi rek ba dana ca laal dara xeebut kenn te bañu ci dara it ba na ko ma ta bàyyi xel la sëñ du nee na dafa am guddi te géntug doomi sëñ Tuubaa nag du gént dafa gént gis Seex Ibra fekk mu gént mu ñëw ci sëriñ bi Nana na bi na ne ko defal ni sa mbub mu def ni mbub sëriñ bi di tibb di ci def di ci di ba mbub mi fess yang ngi ko waaw yaa ngi ko. nee na mu ëmb ko nii di génn taseeg Seex Ibra. Seex am nako ana sëriñ bi fu mu mu nako mi fi fa nga joge mu ne ko am ah, la wax mu ko ah, mu ko am ah, dama ci bëgg a mos. neen man nga ko man mu nako mo ne dana ci mos de. way mu ne mo moo ci mos de. <laughs> nee ñene ci rek def ci nee ñu mu ñoddi bu mujj mané ko ay waaj ay waaj te nga goré li señ suñ Tuubaa defal lépp te nga ci yem te ñu ñëw ci Ibra Fall ba nga waxee ñett yoon nak mu melni lu am kersa dal ni sërëx mum mi <laughs> waaye si nee wallahi bima ma xëyee sama mbubb mi dafa ras ba na fa gàkk la ilaha illa allah so na la xéri won jëñ mom bañ ci dara ko la nga ci am nak dana ji jëm dugal la señ am satu bi nga xamné nak ci aminu sayxi la sirru aminu sayxi la bokk bokk na ci li daa wax ci Seex daa na wax ne ku naqaree xam la ndax nee na kuy màndargal Seex Ibra li ngay njëkk a wax du julli du woor te seen surtout nee na den naa nga mu am néeg ba tey bu fa naa ne naafila téeméer rakk nee na na maa moom ba tey ci néeg néeg néeg bi ma dendal ma dégg ko mu julli ñaar rakka benn bi kaamilu kaw téere kaw ngi ci téere suuf bokk na ci li sëñ am sutu wax ci ay darajaam nee na am na bis mu yónni ay ndaw jolof ci sëñ bi nee na sëriñ bi am mbind mum bind mu bari di ko sottiloo sëriñ am sutu ne ko sotti ko te indil ma nee bi mu ñëwee sëriñ bi fab la mu bindoon moom jàmb ko bàyyi fi li sëriñ am sutu bind daal di fab jàmbit ji jox ndaw yee ne leen yóbbu leen ndox mi ne ko na ko naan te lu mu ci bëgg a def ku mu bëgg a jox mbooloo wala lu mu bëgg a def rek na ko ci fas defal naa ko ci lépp jambit jooju sax bu mu ko sànni bu ko mënee defub cëwri takk ko sax na ko takk Cheikh Ibra nee na sëñam sëtu nee na bokk na ci la ma mën a nettali ca la bi la bi fàggul Cheikh Ibra ci mbind mooma nga xam ne gis naa ko te ñeme koo nettali daraja yi xaw sul xut waaw ndegam sëriñ bi nag moom ci boppam mooy mën a fàggul ak njabootam kenn ci ñoom ku nekk dara jeexu sul xam kon moom lu mu doon lu xam. Euh, jërëjëf euh, mbokk yi nga xamante ne bi yéen a ñuy dégg ci dañu seetaan euh, ja jataay baa ngi noonu di jataay murit amee woon fii ci kër Serigne Abdou Samane Mbacke moom Serigne Souhaïbou ñu jaajëfal bu baax a baax Serigne Fallou Fall moom Serigne Aliou Fall